site seen site bi xidma 28 xidma 28. ko ñaanal suñu borom defal ko lu kawe njortam. lu mu man ren yàlla man lu ko ëpp déwén ci bàkk Seexul Xadiim di ziare sëñ Balla Mbuub nag di ko ñaanal bu baax a baax a baax a baax. di kenn nag ci kóole rek sëñ bi mm-hmm. ñu fi mujj ñëw sax xam nañ ko ndax yàgg nañ lool moom mm-hmm. ku ñëw ci kër gi rek da xam digganteem ak sëñ Balla Mbuub mm-hmm. soxna moom yi ñu fekk soxna yu nekk ci liggéeyu waañ wi waaye dafa mel ne soxna see jël kaddu léegi wax na kaddu rafet jëmale ko ci yéen ñi nga xam ne yéenay njabootu seen jili nga xam ne yéen yéen a leen yaatal yéen a leen ñemeloo yéen a leen dalal loolu nag dangeen ko def ngir liggéeyal seen tuwaay dangeen ko def ngir jàppale seen jili mi nga xam ne mooy seen jëwriñ ci yoonu seen tuwaay wi moom sañuñ koo bañ ndax ku la jàpp rek nam la nanga ko jàppee tax te wax dëgg yàlla gis nañ ñu ñuy jàppe ngir yàlla jëmmi sëñ bi sëñ bi loolu la bëgg nag dinañ ko jàppal gan yi bu baax a baax jàppale ko ci berne yi jàppale ko ci teral gan yi jàppale ko ci dalal gan yi loolu rek la bëgg nag kon nag dañ ko ko defal wax dëgg yàllaam di sant ñi ñëpp nag booba tey ci suba ba léegi moom sonnuñ tàyyiwuñ loolu digal ñu def loo leen digalu gi ñu toog di xaar ndigal ndigal rek ka leen fi bàyyi nag ñoom ñi ngi wax lu am solo nee nañ waa ñu doo jéggaani dara doo wuti diwlin joo mottalee doo yónnee dara ci biti li nga soxla lépp mi ngi tege rawatina yi nga xam ne dañ koy séddale muy jëm ci kër gi ñoom waa waañ yi dañ ciy jot seen wàll ba mu jot sëkk loolu nag organisation la loo ci mën a indi ah, waaw loolu moom mënuma cee indi leen damay sant sama sëriñ bu baax bi ndax lépp la moom la doo ko laaj leen mu gàntal la wax dëgg yàlla loo soxla boo demee wax ko

sant sëñ bi bu baax a baax a baax te ngeen ñaan nag yéen bu déwénee bu ngeen di ñëw li ngeen fi fekk ngeen fekk fi lu ko raw te wax dëgg yàlla am sëñ bi tamit royukaay la ñun daal mënuñ leen di ko roy boole koog di ko ñaanal nag suñ borom lafal ko cat bu baax a baax a baax a baax ba fu mu bëgg a àgg rek suñ borom éggale ko fi ci barke Cheikhul Khadim bisimilah barke borom Touba kon mbokki taalibe yi ñu ngi fii ci waañ ci góor yàlla yi Baye Fall moom ci li nga xam ne mooy illay bis bi sëñ Mbacke ñu ak ñu ngi lay delloo ziar bu baax di la fay sëñ Ibrahima di sant bu baax tey rafetlu teewaay bi bu baax a baax a baax a baax waaw fekk ñu fii ci kër Serigne Abdou Khadir Mbacke fii ci bokk yi ñi nga xamante ne nee nañ ñoo jiite waañ wax dëgg yàlla waaw. sëñ Mbacke ñu fekk leen ci liggéey bu barkeel bu tedd mooy waajal ay bernde ku wax yoonu murit wax bernde baay Fall yi moom dóoruwaar ak togg ñam joxe moom loolu moom cër bu leen sëñ Tuubaa defal la loolu loo ci mën a indi. waaw sant rek ndax kii ñu defal bis bi di Cheikh Mouhamadou Diarra borom saam moom li nekkoon ay mbiram lépp berne da caa bokkoon ndax ñu ko doon waxtaanee léegi bi ñu toogee fii rek ñu ne borom saam bu masaana woo bis bu set daana rayub gàtt ngir daa ko daa ko daa ko bernele ña daan ñëw ca kër ga. waaw loolu taxit nag kii nga xamante di sëtam di Cheikh Abdou mbake Mbacke moom it nga xamante ne daa niru maamam ca loolee fonki berne lool wax dëgg yàlla daal daal ñu joxe ndigal it nañu nag na ngeen fexe ba. képp ku fi ñëw it na xolam seddu guy ñu ñu ñuy góorgóorlu ñun ñi nga xamante ñooy bay Faal fii ne ci si waañ bi wax dëgg yàlla gaa eh, joxe nañ joxe nañ fi daal maanaam añi biñ eh, noppee ñu jublu ci reer bi ni incha allah rabbi te it fas yéene nañ daal mu taw feexe lool lool lool lool allah incha allahu taala mhm. sëñ Mbacke kaddu yéen ngay jëmale sa mbokki Baye Fall yi nga xam ne saa boo gesoo Baye Fall moom yëkkateendoo tegandoo lañ xam ci ñoom mooy ay ci murit rek waa seen njàmbaar ak seen pëstef loo ci mën a indi. waaw ay góor ay góor yàlla dëgg lañ wax dëgg yàlla euh, bu bu bu liggéey taxawee dañuy duñu duñu amati sago ci liggéey bi ndax it xam li li li li melow bés bi ak sababu bés bi moo tax góor ñi ak jigéen ñi ñëpp ngi taxaw ci liggéey bi du ñu xaar sax di xaar ku leen di woo naa leen def leen li nan dis lu taxaw rek ñoom ñu def loole te loolu ak sant rek la dañuy ñaan ci barkeb Sëñ Tuubaa li loo xamante ne ñoo ngi koy sàkku ci bis bi sëñ Mor Diarra am na ko mën na ko ñu ngi ñaan yàlla defal leen ci lu kaw seen jotu barkeb Cheikh Mouhamadou Diarra borom sàmm loolu daal xamante ni daal ñoo leen koy ñu ngi leen koy ñaan lu baax di sàkku nag bu baax a baax a baax sunu borom ak nga xam mooy borom bis bi mu defal mboolem mbo mboolem adduna bi ñëpp aw yiw ak tawfeex ci barke borom Touba waaw waaw. Mbacke kaddu yi rafet na ba noppi yan kaddu ngay tëjee. waaw di sant tey gërëm tey ñaanal sunu kilifa gi fi nekk di Cheikh Abdoul Khadir Mbacke mu yàgg fi lool te amug wér ñu ngi koy ñaanal fan gudd te ànd gu ànd ko wér gu sax dàkk tey yéen di leen ñaanal sëñ Ibrahima suñu borom defal leen tawfeex seen site bi lépp loo xam te ne sàkk ngeen ko ci rek yàlla am na ko mën na ko yaanal leen ko defal ci barkeb Cheikh Ahmad Diarra borom Sam yàlla ñu fi yàggateew ay déwéni déwéni déwéni déwén suñuy xéewal du yokku suñuy wér du yokku mu ami koom di def suñuy poos dara ba faw barke borom Sam waaw kay jërëjëf jërëjëf alhamdulilah jërëjëf rahmatullahi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare fekk leen ci waañ wi ñu bàyyi la yow mi ñu jàkkaar lool tur ak sant bi nday jaxate baat bi daa xaw a dee nag moo tax coono yi la ak liggéey bi rek ñu fekk leen fan soxna nday dafa mel ne ndekki jàll na añ yi moom mat na léegi dafa mel ne ñu ngi soobu reer yi fan ngeen ci toll waaw reer yi da leen mu pare dëgg yàlla màggal gi moom neex na chaque année moom neexaay bay tax ñu ñëw mbàkke baa la dara manquéwul wax dëgg yàlla lépp a ma mat ñuy def ba mu baax wax dëgg yàlla macha allah ñu ko ñaanal rek at mu jot yàlla na ko gën a mën dara manqué wu fi boobu ba léegi ndekki añ yi tamit macha allah dëgg yàlla ñëw nii si reer bi léegi ñu pare ñu koy ñaanal daal yàlla na ko <coughs> maamam ji maam moo jaar chaque année mu koy gën a man barke Cheikh Khady macha allah. reer ni muy jolle nii di gilli dafa mel ni ay ñamu Tuuba leen mel ni ay xeeti ganaar la yooyu mel na mi ngi leen fekk ci xol beeg yu mel noonu. Mm, waaw reer yi de moom ñu ngi nii di musal nañ suñu ndawal ba pare fas yéene suñu paree rek defar ba mu baax rek lakk ko nag mu jaar yoon comme ni mu ko bëggee rek. waaw macha allah dégg yàlla moom. waaw sa mbokki soxna yu tedd yi nga xam ne yéen a seq waañ yi nga xam ne foo gëstoo gis leen ñooñu yan kàddu nga leen di jëmale waaw ñooñu de dama leen di wax ñu gën a jàpp rek ndax waañu mel nii daanaka am ko yombul sa dara manqué wul duñ génn fenn dem di laaj dara su bu ñëwee lépp lañuy fekk mu tegal ñu ko fi duñ sonn ci dara surtout li gën a jafe nga nekk ci waañ di liggéey ndox di manqué ndox du manqué dañuy soxla naan luñ soxla dañuy fekk si fii sonnuñu ci dara na wax dëgg yàlla yàlla rek tax nag ñuy wax macha allah dañ koy ñaanal rek at mu jot mu gën koo man ci barke Sëñ Fallou di ñaanal soxnaam yu baax yi ndax saa bu ñu ñëwee dañ ñuy teeru teral ñu te soxna su yaatu yombul wax dëgg yàlla baax nañ lool nag ñi di leen ñaanal nag yàlla na leen yàlla defal jaam boole leen seen borom kër njaboot gu barkeel ci barke Cheikhul Khadim ak maam la jaara borom saa. yan kàddu ngay tëjee. waaw maa ngi tëjee rek mm, di di gën a kontaan rek di bég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 في كل سهر وفي ظفر هماني على ماهن ما الأبصر السفر